dul yéeg rek ma daal di bàyyi waaw waaw ordinateur ak Thiatou Diop ku nekk jël na avertissement Grand Tidiane mooy arbitre boobu combat eh Ablaye Ngom sama tooma la mooy noonu moog sëll bu ndaw si combat lamboo naa la diya lamboo naa la diya soose yi depuis Bettenty eh jël na la Usine Technique jël na ko day bañ la ilaha illallah Usine Technique daan na tool yi